صل على خير رسول يا من به يحبوب يسول في الآل وسام بالهدول ولتتقابل قلمي هب لي كون قلمي بسارة المقدم واكتب به تقدمي بلا أسن والمي صل على خير النبي خاض الورى بالأدب يا من كفاني ودبي بجاهه وسلمي هو الذي فاق سواه من البرايا بهداه حتى بدا كتب سماه في عرسك المعاصم وفي الجنان والسقوف وفي الوجوه والكهوف وبالرماه والسيوف قلع كل سنم الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 مالك يوم الدين اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله الله سمع الله الله الله الله أكبر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 rabbi audu bika min hamazaati shayatin wa audu bika rabbi an yahdurun wa rahmatullahi wa barakatuh noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di sàkku seeni ñaan di sàkku seeni njéggal yéen nag mbokk jullit yépp gannaaw bi ñu jégguloo yàlla azza wa jal ci fukki fan yu tedd yi ten toll ci jeexi talli maa min ayaamin ahabu ila allahi an yutaabada lahu min ashri dhil hijja mu rawati nag bisu tey jii waaye ci yépp lan war di gën a góorgóorlu ci jaamu yàlla di ci gën a def ay ndigalam di ci gën a daw ay tereem ndax lu baax lu ne ci bis yu tedd yi lay gënee lu yées lu itam ci lay gën a yéese nu war a bis bi dundal ko ci juróomi faratee julli yi waaye dundal ko it ci sunna si ko xame sunnata abil ambiyaay ibrahima alayhi te def ko def yéen mi nga xam ne ci lay mate ndax yàlla nangul nu ko ani sayidati aishata ummi almuminina radiallahu anha anna nabiya alayhi wa alihi wa sallama qaal ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأغلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا xame nañ ci hadiis bi ne dundal bis bi ci sunna siñ ko xamee dara gënu ko ci bis bi gannaaw li ñëpp xam di julli juróom yi nu di ci ndokkeel ñëpp di ñaan yàlla mu nangul la ko te delloosi ko ak ñun ay ati at yu ni fekk ci jàmm ak tal di ci bereel ziyaare ak ñaan suñu kilifa gi Cheikh Sidi Muxtaar al xalifatil aam li tariqa al muridiya yal na ko yàlla sàmm te dëgëral ko wéral ko ci yaramam waaye ci xelam itam te yàggal ko fi li may jot ci turam nag dafa aju rek ci waru garam yu ko yàlla gàll bi mu ko defee muy kenn ci kilifa yi lislaam yi ci réew mi def ko it mu wóotu sëriñ bu mag bi ci njaboot ak ci yoonam bi ak ci dëkkam bi dafa seetlu ne ay at a ñi ëpp ëpp ci julliti réew mi ñooy woorandoo di wareendoo di tëbaskeendoo ak gàmmoondoo te ñooñu ñooy ñi topp waroom xam-xam yi wax ne ñi bokk gox ñooy bokk mbirum weer di gis-gisu Ibnu Abbas nee na sax loolu la leen yonent bi digaloon ba muy tontu Kurayb hadiis bi guddul Kurayb dafa ne dama ñëw saam fi ñu wax tey Syria koor bi teru fekk ma saam nu gis weer wi guddik ajjuma gannaaw bi ma dikk Madina ci mujjug weer wi Ibnu Abbas dama laaj ba ci yàgg mu tudd weer wi ne ma kañ ngeen gis weer wi ma ne ko gis nañ ko guddik ajjuma mu daal di ne yow ci sa bopp gis nga ko ma ne ko waaw nit ñi it gis ko woor Muawiya woor mu daldi ne waaye ñun guddi gaawu lan ko gis te duñ dañ di woor ba matal fanweer wala mu gis ko ma ko ne ko danga dul doyloo kon wala dañ dul doyloo kon gisul Muawiya ak wooram mu ne déet nii lañu ko yonente bi yàlla ba digle woon lu yonente bi digle woon nag mooy ci noonu ko Ibn Abbas defoon am naa yaakaar ne dara gënu ko wóor ci jullit am lu ci amit loo xam ne ñu bari duñ ci bàyyi xel te moo di ne saam gi koray bu jóge ak xijaas gi mu fekk ibnu abbas jege wu ñoo soree ni fii soree ak màkka ku jóge saam lu néew lay jege ci iraq wala jordan ci wàllu salum egg xijaas dëgg la booba dem beeg dikk bi gaawuloon ni mu gaawee waaye noonu lañ jegee mel na rekk ku jige fii jéggi Guinée Conakry dem Sierra Leone wala Liberia wala Ivory Coast saaxilul aaj lépp ci réew mi kon ci ndigal loolu boroom xam-xam yooyu tënku ci lañ tënku waaye teewul am na ci waa mi ñu topp boroom xam-xam yoo xam ne fu weer feeñee ci àddina si rek ñépp ci war a sukkandiku loolu it dëppook hadiis bi wax ne dee leen woor ci gis ko tey wori ci gis ko nga xam ne tënkul gis gi ci nu gisal ko suñu bopp tënk ko it ci am ñu ko gis ci béréb bi ne na gis am rek ak fuñ ko mën a gis kon yi itam li ñuy def am nañ fuñ ko teg bu kenn jàpp na rek dañoo bëgg wuute di def li leen neex wii doxalin nag ci ay kuréel lan ko miin waaye jëmmi réew yi ñoom ni Sénégal di doxale di sukkandiku ci gisu boppam lees ci miin te tegtal bi moo di ne saabu koor dikkee wala kori wala tabaski am réew yu jàpp bis am yeneen jàpp bis ba ca topp li ñuy faral di dégg te man ku ko topp toolaa moo di gisub weer wi sax na ci réew sàngam ak réew sàngam waaye réew sàngam ak réew sàngam gis gi sëxu fa dañuy matal fanweer ñoom moom lañu wax bari na lool it lu Sénégal ak Maghrib ak Oman ak iraan di daje ci loolu muy matal weer tabaski gi nag ñoom daje wuñ ci ak ñun ñu ñoom démb lañ julli ndax weer wi mën naa leer fa ñoom ba noppi la dem fi ñun waaye mësuma dégg ñu ne réew sàngam ak réew sàngam gisuñu weer wi waaye nee nañ gannaaw réew sàngam gis na ko rek loolu doy na nga xam ne kon daje gi ci benn bis teewul réew mu ci nekk gisu boppam walla ñàkk gisu boppam ci la sukkandiku gannaaw woote gi gu tege ci xam-xam la guddul yàq dara sëriñ bi dafa bëgg nu bañ koo jox dayoo bu mu yelloowul eggale ko fu mu eggul di ci werantee ka xuloo ba muy ñur taqali ko te ñaan rek yàlla nangul ñépp te def ko muy soree waaye léeg lekk du mën a ñàkk ndax noonu la mu yàlla binde wala yazaaluuna muxtalifiina illa man rahima rabbuka wa li dalika xalaqahum fii xalaat yaa ngi tege ci xam-xam ku ne war warmaal xalaat moroomam jàpp ne mën naa am kat mu dem ba gis ne moroomam moo gën a jub xalaat wala mu dem ba gis ne moom ci boppam moo jum ci xalaatam def ne imaam Shafii mi ne woon ra'yi sawaabun yaxtamilu alxata wa ra'yu gayri xataun yaxtamilu sawaab wa ra'yu gayri xata'un yaxtamilu sawaab feek looloo ngi am jàmmoo di am te kenn du yëg ci xalaatam ku dem ba gis ne moroomam moo gën a jub xalaat man koo fekk gannaaw loolu sëriñ bi nee na li ko war ci yoonu sëriñ Tuubaa bi ak njabootam bi ak dëkkam bi mooy leeral ak taxawu ak sàmm ci biir loolu nag lay fàttalee ne yoonam wi du lenn lu dul lislaam jum yeesal teg ko ci alquranul karim ak sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam banaytu taatiya bittibaaci bidikri wa sunnati wal ijmaaci njabootam gi te ñooy ñi ko def seeni roykaay ñépp li bi bëgg ci ñoom rekk la bëgg ci moom ñoom moom seen siir muxtaar te loolu weesuwul ñu doon ay jullit yu wéetal seen boroom di ko topp tey rafetal topp gi ak rafetal seeni diggante ak seen moroom jaam yi te lépp tege ci alquranul karim ak sunu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te nee na nos bi kilifa yoon wi nos yoon bi maam ay njiit ami jëwriñ nos boobu mooy yombal li sëriñ bi bëgg ci njaboot gi kon ku nekk ci nun war naa taxaw taxawaay bi ko war ci biir nos boo bii bu waree digle digle bu waree topp toppee dimbale ku mën a dimbale taxaw ku taxawu jubbanti ku war a jubbanti dëkkam bi it di Tuuba sëriñ bi nee na li ci daa wax rek la ci waxaat te mooy warmaal giñ ko war a warmaal ak moytu giñ fi war a moytu lépp lu wuteeg li fi borom bëggoon te loolu war naa yomb ndaxte bu sëriñ Touba doonu toon kim doon it eh, jëlale naa jël jëlale naa diine ak waaye ngor ak yiwe daa war a tax ku borom kër baaxe ba yaatal ko ci këram mu bañ a te bëggal ko fa lam bëgg bañal ko fa lam neena ñi bëgg a sax ci def ci dëkk bi lees fi bañ te mel ne amuñu ci lu ñuy rus amuñu ci lu ñuy ragal nee na ñooñi nañu xam ne deesu leen ci bàyyi du ci saahir du ci baatin mi ngi ñaan yàlla mottali nawet bi defal ñu ci xéewal bu kawe suñ waaye mi ngi nuy fàttali it bu mbay mi sottee ku ci asaka war mu génne ko te bañ a yàq mi ngi ñaan ujaaj yi delsi ci jàmm te yàlla nangu leen ñoo seen mbokk yañ fay fekk ñoom it nañ ñaanal réew mi ak réew jullit yépp wa aghrina ya rabbana bil xidma lil muslimina abada wa rahma wa awlina ya rabbana husna al xitaam mamaati wa adan yowm al يوما ألست أولا قبل سوي تكلمي صل على خير رسول يا من به يحبو بسول بالآل وسام بالهدول ولتتقابل قلمي هب لي يكون قلمي بسارة المقدم واكتب به تقدمي بلا عسن وعلمي صل على خير النبي